jambuloo Dakar moo la mëcculoo say baaraam ki tax ba benn góor jàmbatatu lii di feebaru say mu ngi nii Serigne Cheikh Bachir Niass yàlla may ci wàllu xam rawatina ci wàllu ngóor yow mi amee impuissance sexuelle maanaam tële boo ñëwee ci moom mu saafara ko yow mi nga xamante ni itam li nga yor dafa gàtt boo ñëwee mu yokk la sa awra ba na nga ko bëggee éjaculation précoce maanaam yow mi gaaw a jot sa bopp moo ci gaaw hémorroïde mi nga xam ne mooy ndeyu feebar yi boo jëflanteeg seex Bachir Niass di nga ci gis résultat jigéen itam bu munta am doom ci sëyam ñëwal nga seet ci ko cat ak ubbeeku moo ci mën wooteel gaaw numéro bi benn la 77 172 98 87 77 172 ak Cheikh Bachir Niass sa sëy day gën a neex. salaamaaleykum mbokki xarit yu ñuy taaxirlu ci suñu gaal 24 jaajëfal nañ leen ci tànneef gi ànd ak yéen jukki leen xibaar yi fi jot a ruusee. dañ koy dooree ak tournée économique bi nga xam ne njiitu réew mi fas yéene na ko amal le 19 ak le 20 septembre bi nga xam ne moom la ñu dëgmal loolu nag euh, amaloon na ko ci at ya la ñu génn 2018 demoon na ci région bi nga xam ne moo di Sédhiou Kolda Ziguinchor amaloon nag ñoom waxtaan wu yaatu ci wàllum culture ginnaaw bu mu demee woon ca Saint-Louis ak Louga mu mel ni njiitu réew mi tournée bi nga xam ne moom la fas yéene amal euh, ci le 19 ak le 20 septembre bi région ya mu ciblé mooy euh, bët saalumu réew mi bokk na. ci Fatick Kaffrine ak euh, Kaolack moom itam la mu fas yéene amal ci boobule tournée moo di visiter les cultures daal di am ak ñoom waxtaan wu yaatu ci échange bi nga xam ne moom moo dox digganteem ak euh, producteurs yi. ñu woy ba tey wax ci tolluwaayu réew mi ak mbënd mi nga xam ne moo dox diggante way politiciens yeeg coow li ci seen biir mu mel ni mbënd mee leen jaxase tax na ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko moom teggewul tànkam benn yoon ak opposant am mu mel ni daal. kii mu duut baaraamu tuuma moo di njiitu réew mi ne moo dox digganteem ak opposant am ñi nga xam ne ñooy opposant yi itam euh, defuñu lenn loo xam ne nii lu ñu doon xaar ci ñoom la nekkuñu opposant Macky Sall waaye opposant de l'opposant maanaam kii di njiitu réew mi da leen a jox xaalis ngir ñu opposé ko moom Ousmane Sonko loolu la xamle ca conférence de presse ba mu doon amal démb sa ci gicoor waaye itam yemul foofu xas na njiitu réew mi ba mu ràppaak na mu doxalee digganteem ak waa Ziguinchor ba nag too noppi daal di nag fexe convaincre leen ci milliards yi nga xam ne Macky Sall fas yéene ko woon def ci ab projet ca Ziguinchor waaye gis na ne boobaak léegi defu ca euh, dara. ba tey dañuy des ci opposition beeg Ousmane Sonko kàddu ya mu mu mel ni daal wax jaam na boroom ndaxte boo xoolee kàddu ya mu jot a yëkkati ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi teg ki ne joxuñu ko woon parrainage mu mel ni njiitu uh, gëm sa bopp lay waxal di Bougane Gueye Dany ña koy fàttali moom Ousmane Sonko ne toll woon na fi ay jamono kenn rek moo nekkoon ci ginnaawam di Bougane Gueye Dany moo ko doon jàppale di ko indi lay di ko jox ay émission ci seen TV ngir muy wax li nga xam ne moo ci biir réew mi bi ñu ngi koy fàttali itam ne la taxoon ñu tëj tele Bougane Gueye boobu at mi ñu weesu bokk na ci émission bañ ko joxoon ca Sen TV ku wax lii wax la ca des directeur ONAS ak émission ba nga xam ne moom la doon amal ca ITV ñu naan jury du dimanche mu mel ni fa la yëkkatee woon ay kàddu di xamle nag li nga xam ne moom moo di plan décennal bi ak xaalis bañ ca dugal ci contredit bi nga xam ne Ousmane Sonko doon na leen ko def ndaka noonu ci la Ousmane Sonko daal di jëlewaat ay kàddu moom itam daal di eh, jëlaat revanche am di ko xamal ne ko milliards yi ñuy wax demu ci ndaxte 40 milliards la Ousmane Sonko doon déclaré waaye mu mel ni directeur ONAS boobu 80 milliards la daal di déclaré teg ci daal ne bu fekkee Ousmane Sonko li muy wax soxol na ko na ñëw mu daal di koy jox rapport détaillé bi ngir mu mën a xam xaalis bañ ca dugal ak anam bañ ca dugal la tax Ousmane Sonko daal di yëkkati wat ay kàddu xamal ko nag ne ko tournée bi muy def bu ca jógee dina nga xam ne moom moo di plan détaillé bi wa ilaa dinañu indi ñoo xam ne seen xam-xam jëm na ci loolu ngir ñu daal di nag saytu bu baax a baax xaalis boobu ñuy wax dugg na ci am déet ngir ñu daal di koy leeral askan wi. ñu àddu wax ci leneen lu ñeel askan yi mu di faux docteur yi nga xam ne nemmeeku nañ leen ci biir réew mi ginnaaw docteur Samba mu mel ni ñi nga xam ne ñoom ñooy office centrale de répression des trafics illicites des stupéfiants jàpp nañ keneen koo xam ne mu ngay wuyoo ci turu F Keita doonoon nit boo xamante ne ni da doon yëngu ci wàllu médecine doon bind ay ordonnance waaye itam di saytu wër gu yaramu doomu aadama yi naka noonu ci lañ ko daal di ciblé ci anam boo xam ne dafa bindoon ab ordonnance waaye ordonnance ba mu bind bokk na ci nga xam ne dañ koy saytuwaat balaa ñu koy jox ki nga xam ne moom lañ ko bindal ci lañ ko tegee loxo nag waaye weetul woon ci mbir moomu lee ndax am na keneen koo xam ne complice complice am la kum doon ci liggéeyandool di wuyoo ci turu M Diop ginnaaw bu ñu ubbee enquête ba ca la ñu xam ne nekkul woon médecin bu légal waaye étudiant en huitième année ci école de médecine Saint-Christophe buy nga xam ne moo di Saint-Christophe Ibama Diop lenn lu trafic de cocaïne exerce illégal de médecine ba tax na yoon daal di koy teg loxo jamono ji ba noppi daal di ci ubbi enquête bu yaatu ca mbëbës ab liir la ñu fa daal di fekk nag ci anam wu doy waar ja mu mel nii ba ñu ko fay fekk sax yàqu na carrément lañ ñu xamal nag ab xale bu doon soog a juddu la ba léegi xamuñu ko ko fa sànni li waral ñi nga xam ne ñoom ñooy gendarmerie bu Malika ak procureur daal di joxe ordre ginnaaw mënuñu woon yóbbu xale ba ndax ana woon ko fekk nii dañu daal di koy suur sur place waaye itam ubbi ci enquête bu yaatu xool kan moo def mbir mu mel noonu ñu dem ca Tiwaawoon moom la ñu fas yéene àggale mu di jumaay Tiwaawoon ju sellu jooju ayaat boobaak léegi bi ñu ko commencé woon liggéey mu mel ni daal engagement am na ca ndax fi mu ne nii fas yéene nañu ko àggale ci anam boo xam ne nii moo doonoon plan ba ñu commencé woon tax na ñi nga xam ne ñoom ay doomu réew mi lañu dal di ci taxaw nag taxawaay bu am solo bokk na ci ki nga xam ne moom mooy euh, Youssou Ndour dal yëkkati lu tolloog fukki million ci alalam def ko ca racine bokk na ci ki nga xam ne mooy Aziz Ndiaye yëkkati lu tollook 250 millions jàppale leen ko waaye kenn du job si mi nga xam ne genn wàllu milliard la moom yëkkati suuf ciment ak li nga xam ne moom moo di béton dal di koy dimbale itam ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ca liggéeyab jumaa joojee mu mel ni ba ñu dajalee lii di xaalis ba bokk na ci lu tollook 1 milliard 500 yoo xam ne askan wi ñoo ko dimbale waati waa Tiwaawoon ngir jàpp ca jumaa ja ngir liggéey ba mën a euh, gaaw El Pistolero ak coowam li mu fi amoon jamono ji ñu génn mu mel ni booba ak léegi ay lampam fay na kenn li jëndeetu ko woon waaye daal mujjee naa dem fa nga xam ne moo di Touba ca xalif général kulli murid di sëriñ taxa Basiru Mbàkke sukk ca kanamam mu mel ni ñoon seen diggante ñoom ñaar amal nañu waxtaan wu yaatu lañ ñu xamal nag la waral seen waxtaan woowee bokk na ci li nga xam ne moom mooy situation économique ak sociale bi ci réew mi waaye itam daal di moom Moustapha Cissé Lo julli bi nga xam ne moom moo di Serigne Moustapha Noël Mbacké amal ak moom waxtaan wu yaatu tuxum chicha bokk na ci li nga xam ne jamono ji ñi saytu wérgu yaramu doomu aadama yi dal dina ñuy wax conséquences yi nga xam ne moom lay def ci ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo ndaka noonu ci la ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum wérgu yaram mi ci réew mi di Abdoulaye Diouf Sarr ànd ci ak Assom Aminata Diatta dal di nag wax li nga xamante ne nii mooy décision yi ñu jël ci ñiy def jënd jaay chicha ak ñi nga xam ne ñoo koy utiliser ci yenn place yi nañu ko bàyyi ndax nekkatul loo xam ne lu légal la dañ ko fiy tere commencé nañ ko képp koo xam ne yaa ngi jëfandikoo chicha wala gis nañ la ngay def lii di jënd ak jaay chicha ci biir réew mi yoon dina la teg loxo wërsëgu jàmm yàlla mu mel ni Aïssatou jàlloo mi doon def baccalauréat mbirum yàlla moomu lee da di ci moom wala miracle la ci ñi nga xam ne mësuñoo gis lu mel nii ndax Aïssatou jàlloo dafa ëmboon ba diis waaye jour bi nga xam ne ci lay def examen di deuxième jour ba ca décédé ca vers 17h ndaka noonu ñu daal di koy yóbbu euh, ca hôpital euh, mu daal di fay fanaan ba bët set euh, ba mu xëyee sage-femme ba daal di koy consulter waaye terewul mu daal di dellu si waat ca ëllëg sa def li nga xam ne moom moo di examen ca troisième jour ba waaye la ca gën a jaaxal ñëpp tey itam doon mbégte ci ñi nga xam ne ñoo sës ci Aïssatou Diallo dafa daal di génn première du centre am mention très bien lambi golo ji ci réew mi ak puusal ma toog ji fi am mu mel ni daal ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbirum cinéma bi kenn demul ñu des ndax coow dox na diggante Pathé Sène ak Serigne Ngagne ca Thiès ginnaaw bi Pathé Sène toogee woon ci ab daal di def li nga xam ne moom mooy analyse wala di critiquer yenn série yi nga xam ne ñu ngi daw ci biir réew mi bàyyiwul mbetteel ginnaaw mu mel ni daal am na lum leen guuxaloon ba yàbbi leen ko ci seen série bi nga xam ne moom la ñuy dawal jamono ji di quatrième saison bi. Pathé Sène nanu amul benn cohérence ak li nga xam ne moom la ñuy joué teg ci xas acteurs ya nekk ca série boobee ba ñu ne Waly Ndiaye waaye kii di Serigne ngañ moom mu mel ni daal tibb boo xam ne bu tàng la ku ko seex yàbbi ndaxte tontu na Pathé Sène teg ci xamal ko ne ko yàggul ci mbirum cinéma tey amul fi tu toog wax ci li nga xam ne moom mooy artistes yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi rawatina mu koy duut baaraamu tuuma moom Serigne ngañ ba muy tourne lii di cinéma wala théâtre Pathé seen kenn xamul fu mu nekkoon kon tey bu toogee dem di xas ñi nga xam ne ñoom ñooy turubam boobu lee tegu ko ci yoon teg ci la muy wax xamu ci euh, dara dañ koy jeexale ak point covid 19 bu ñu sukkandikoo ko ci communiqué bi ministère de la santé et de l' sociale amal tey ki talaata ji yemoog fukki fan juróom ci weeru septembre benn nit moo ñàkkaat bakkanam dooleeku ca lim ba ñàkkoon seen bakkan tax ministère de la santé de l' sociale di sàkku ci askan wi ñu sàmmoon sàmmoonteeg digle yi bàyyi tere yi waaye itam bu ñu bëggee mucc muccal suñu njaboot muccal suñu askan xeex feebar bi mu génn ci réew mi nañu daal di def li nga xam ne moom lañ ñu digal mbokk xaritu ñu doon taxirlu ci suñu gaal 24 dañ leen di jaajëfal à chaque fois ci tànneef gi di leen jox dig daj ba ëllëg incha allah tey sàkku itam ngeen wëyal suñuy programme ki la jàmbuloo daqaar moo la mëcculoo say baaraam ki tax ba benn góor jàmbatatu lii di feebaru say mu ngi nii Serigne Cheikh Bassir Niass yàlla may ci wàllu xam rawatina ci wàllu ngóora yow mi amee impuissance sexuelle maanaam tële boo ñëwee ci moom mu saafara ko yow mi nga xamante ni itam li nga yor dafa gàtt boo ñëwee mu yokk la sa awra ba na nga ko bëggee éjaculation précoce maanaam yow mi gaaw a jot sa bopp moo ci gaaw hémorroïde mi nga xam ne mooy ndeyu feebar yi boo jëflanteeg Cheikh Bassir Niass di nga ci gis résultat jigéen itam bu munta am doom ci sëyam ñëwal nga seet ci ko cat ak ubbeeku moo ci mën